cest à jaru ko jaru ko tey ñiy dee les quinze la yi génn tey ci plage bi te am na certainement am na ñu des. ñu ngi wër ba léegi ah gisagum. jusqu'à présent ñu ngi wër ñu ngi wër donc loolu mais Mohamed loolu lan moo ko jar. mais président kuy ne fii du am sax fukki dërëm bu mu jëndee. mais non non non non xam nga loolu xiif ragalatul dee. non non nga loolu waxin la aussi. Mm. parce que aussi Sénégal ñun on a une tradition aussi. koo fi gis ci kër la dëkk. du dëkk Sénégal tamit ñëpp xam nañ ne. wax dëgg yàlla bu lekk jotee amul kuñ ci amul xaar ma yàlla. waaw yow doxandéem bi sax boo ci yemee gars yi dañu bàyyi nga lekk xam nga loolu it waxin la rek. c'est-à-dire man c'est vrai que toog amoo liggéey metti na nga dëkk am ñoo xam ne ñu ngi seen kër yaay ak seen kër papa. fa lañ dëkk mais ñàkkul lu ñuy kolo kolo muy ndaw mais man xam nga lu ma mënul comprendre c'est-à-dire man mënuma comprendre nit di risquer sa vie mu leer ni yow pirogue bii nga dugg. pour mu yegg à destination tu as soixante wala soixante quinze pour cent yoo xam ne am nga chance mu dégg nga dee ci géej gi c'est-à-dire loolu c'est pas c'est pas rationnel il faut que xale yi xam ne c'est pas rationnel deuxième chose boo yeggee tamit c'est pas évident foofu nga dem fekk l'argent ne se ramasse pas en Europe dem foofu tekki attention tekki rapidement loolu tamit lu lu nit ñi war a xam la yenn gars yi conditions yi ñuy vivre Europe bu ñu ko waxee yenn booy duñ sax dem dëgg la mais kenn du nekk Europe di vivre yenn conditions yi di ko wax. ko wax mais ñun xam nañ. am nañ ñun ci xam. xam nañ ni gars yi di laay fay foofu yenn saa yi. yenn saa yi ñi ne Sénégal sax ñooy. envoyé ñooy envoyé xaalis pour pour pour dimbali la loolu yëpp am na fi. loolu yëpp nañ koy wax xale yi aussi. que ni affaire bi du ay pañe ay pañe xaalis yoo xam ne da ñëw rek tibb ba mu fees. nga yónnee Sénégal c'est pas ça. même foofu boo fa demee boo nekkul liggéeykat xoola doo tebbi dara. loolu tam mooy dëgg. absolument mhm. foofu ñi fay réussir mooy liggéeykat yi dëgg mais liggéeykat nag fii nga koy commencer. quand il faut nga nangoo sonn. Mhm. c'est-à-dire man foofu quoi l'État a fay c'est vrai. Mhm. mais en France il y a des chômeurs. François Hollande quoi il ne s'est pas représenté mais c'est parce que moom moo jëloon comme challenge ne bu inversé wul woon courbe de chômage bi de du représenté wu. il n'a pas pu le faire il ne s'est pas représenté. pour te dire que même dans les pays yi ñuy dem. ils ont des problèmes de chômage. très mais problème de chômage je somme warul tax warul nekk une condition pour ma dem. dem deewi ji man deewi ji man loolu laa mënul. c'est mois moi je dire man pour man amul raison bu war a tax nit ki di jël risque bu mel noonu maintenant voyage nag ci ci ci ci ci dundu nit la bokk mais voyage aussi boo bëggee dem Europe avion ngay jël loolu mooy dëgg aussi Europe pirogue du fa dem. da ngay jël avion fii wàcc Europe loolu nag am na yoon peut-être nañ mais sunu gouvernants yi aussi nañ gën a waxtaan ak européens yi aussi ñu xam ne nit ñi dañu war a demalante ñu yolomal yenn affaires yi comme ça booy buñ ñu tamit ñu mën leen di may. d'autant plus que am na dëkk yoo xam ne ils ont besoin de la main d'œuvre africaine. parce que ñoom ils ont des populations sant Hmm. mais yooyu yëpp ça se négocie xale yi xam ne du géej gii lañ war a jaar pour dem. parce que man bi ma xoolaatee image yi sànq maa ngi gis kii di kii j'avais pas vu les images. mais yi. c'est grave bi ma ko xoolaatee. c'est désolant quoi. j'avais pas vu ces lii lii lii dafa war a tax xale yi jël conscience. c'est malheureux lii dara jarul ko gos la ku leen waxoon ni fii ngeen di mujjee duñ ko gëm. il y a ce risque là donc est-ce que jar na ko. mais toogal fii fight suñu borom mooy joxe. yow xamal la bul sàcc bul def la lu noonu soo yëngatoo tuuti am su ma borom mooy joxe dalay jox mhm. maintenant nag boo waree dem tout le monde ne peut pas partir en Europe dëkk bii ñun ñoo fi dëkk ñun sénégalais yi ñu ëpp ci sénégalais yi aussi fii la ñuy fii la ñu mën a liggéeyee ñëpp mënuñu dem c'est une minorité qui peut partir très donc loolu yooyu tamit man jàpp naa ah. on doit avoir une campagne de communication loolu ça doit venir de l'État ñu wax ak xale yi wax ak parents yi aussi jël ay renseignements xool ñan ñooy organiser voyage yi pour avoir du butin ñooñu tamit ñu teg leen loxo. ñu teg leen loxo arrêter ça parce que lii tamit c'est inacceptable. mooy mafia gi rek alors euh, euh, beneen beneen aspect bi Ibrahima Pouy. mais dafa mel ni sunu ndaw yi dañuy ragal di entreprendre am nga cinquante mille cent mille war nga mën a déparer dara ñun gis nañu fi ay ay homme d'affaires te du jeex ci réew mi mais nday faatu déparer ci ay ay vingt mille ay vingt cinq mille. ay trente mille yàlla teg ci loxo tey ay milliardaires lañu lu tax suru ndaw ñi di ragal di entreprendre c'est-à-dire euh, yor sa benn un million di dugg ci gaal bi est-ce que doo teg benn affaire bu dee jàng nga am nga benn compétence mais tegal sa benn benn benn cellule wala sa benn affaire domaine boobu nga jànge nga jëm ci jéem a évoluer bu dee xëy na yàlla def na jàngoo mais daajal sa table mais xoolal loo départ euh, parce que fi mu nekk nii départ rek moo jafe. boo déparé teg ko ci yoon di nangu ñu lay xelal am ak jàppale aussi ma je pense que ne loolu buñ ci tàbbee ndaw yu bëri mën nañu réussir parce que ñu fi doon tey commerçant yi yu mag a mag mag yi tey mais day faatu lan la ñuy wax. Euh, borom bi bitu bitu ko mbagg boo gis. Euh, moo ne man gis naa un jeune tàmbalee ci ci taxaw di jaay ay ay jiin nii nii di ko jaay nii nii nii fii ci. ci Dakar ambulant ambulant xoolal weesu foofu. daaj taabalam di wékk léegi ya ya ma doon ambulant ñu weesu ci tuuti mu daaj benn cantine bu ndaw mais kooku nekkul di évoluer. léegi ay boutique la yor prêt à porter. Euh, sëñ Amam dafa am fu mu jaar projet mais ndey Fatou munoo rek xëy rek ne damay am par force tekki nii nii nii nii tintin loolu. loolu mooy andi. loolu mooy indi phénomène bi Ibrahima. gis nga li nga wax nii. Mhm. danoo yàkkamti. danoo yàkkamte tekki aussi dañ waxante dëgg gis nga oto yu rafet yi ci dëkk bi immeuble yu rafet yi ci dëkk bi jeeg-jeeg disket xale yu mool yi ci dëkk bii bokk na li tax gars yi yàkkamtee am ñaare ba blow bi dafa tax gars gën a am dafa am ak bu sa toog Sëñ Saliou nekk Mbàkke dañoo war nga ñaanal ñu mag ñi doon ànd ak Sëñ Tuubaa lañ amoon ñu am ko sëñ Saaliw ne leen sàllaa de waxuma la mag ñi sax waaye saxaaba yi doon ànd ak rasulillahi lañ defoon ba am lañ am ci Seydina Mohamed ak ci suñu borom ba léegi loolu jógu fi mu ngi fi ba léegi pas-pas la ak sabab loo rek boo ko sabab loo am ko c'est pour dire que Djily Mbaye ginaar la doon jaay. ah, ah. wax ak. fa tàmbalee. ginaar. sa pas-pas baag sabab sabab la ba jiiri bay defoon ku ko def jege ko Jóoga Kebe mos naa ànd ak benn xaritam ndax ki ma ko nettali maam la ci man te doon ànd ak ñoom nen dañoo mos a ànd ba kër gu ñu doon romb réseaux ak premier kese ah saa ñëwee ba ci kër gi rek Jóoga Kebe day taxaw di xool kër gi ba bës xale bi ne ko yow saa ñëw ci kër gi di ko xool mu ne ko kër gi dinaa ko am. amaam bu ko ëpp. rêve bu nekkoon si xelam muy gëstu borom kër gi ba xam ne borom kër gi doon taaba taaba mu commencé taaba taaba bawol bool yi kenn ëpp nañ xaalis ci réew mi immeuble yi ngay gis ñuy jébbi yu ci bari ñoo ko mooma suñu la rombee léegi léegi léegi soo defoon daal yëkkati 1000 francs may la parce que seen alal dañ koy ñaq ba pare xeebu ñu dërëm bi xeebu ñu ñaar dërëm bi ba pare denc ko investir ko foo xam ne suba suñu borom da koy jural waaye su fekkee da nga am benn 100000 francs su waali wootee nga dem bu keneen ka keneen ki sant ki dëkk Géejawaay Sidi Diop wootee nga dem su la benn disquette rombee nga wut chambre meublée. bu boo bëggee dara moom foog nga takk xaar chambre meublée. Hmm. dem dóor dóora pare ci dem wala nga jël sa benn cent boo gañee léegi ne suba dina ñëwaat nga teg say chemin jël say biling biling yëru yu nice nangam nangam dafa am loo xam ne catégorie de dundin la soo demee ci daayra yi boo demee ci waa kër maam Alaaji Malik ndaw ñi yor daayra ba. pourtant is bu taraxee wala ndaw muriti ndaw li maamu laay kenn si ñoom yorul ne gàññ mais dañoo topp culture beeg enseignement yeeg njàngale yi doy loolu ñu am ba pare wiir kërlu suñu borom si doy loolu ñu am suñu borom di leen taxawu nit da doylu mais jeune léegi si Mohamed on est trop pressé. dogguma la am na pour avoir un avenir meilleur.